알함두릴라 gannaaw loolu nag yéen bokki taalibe yi mënuñu leen waxtaan ak yéen waxtaan woo xam ne dama bëgg nu taylu ko bu baax a baax ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fi bàyyi ko kenn du ne lii la jublu woon a wax ba lii la lii la fasoo woon a wax ba léegi wax ji dama koy waxal sama bopp tojal ko sama bopp leeralal ko sama bopp ma di leen yëgal ne te tabaski ga wax naa leen di leen nun ay morit lanu te duñu yam dong sax ci doon ay murit ay saarix la ñuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax sëñ Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it Touba gi da koo sos jële ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee ne Touba li ab din muridin saarixin texe ñeel na bépp murit boo xam ne nga joxe sart yi nga xam ne ci la ab murid di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yëpp def ko te benn bu ngeen ci defan mu doyu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a waat ne ay ngeen danaa mën a waat li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xidmatin la wax aw bi hubbin la wax aw adiyaati la wax te yooyu yëpp maase ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëf la mën lépp kon nag seenu saadix moom mën naa koo seere fu ne ma di leen yëgal nag ni leen hmm, sëriñ Tuuba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll sëriñ Tuuba am. man naa fu ne di bërëmu waaye bu yegsee fi sëriñ Tuuba fi la yem kon nag ngeen yëg ne sëriñ Tuuba moom nga xam ne képp ku koy jox sa bopp da koy wax ne ko jébbal naa la sama bopp àddina jébbal naa la ko àllaaxira moom mu wax ne képp koo xam ne nga fi man te indi la fi jaaxaloo ma ndax yàlla jox na ma ba mu doy sëkk te soxlawu ma ci dara ku ko fi wut si am ko wax ne àllaaxira itam koo xam ne indi na la loo ci soxla mënal naa la ko te dinaa la ko defal wax ne kenn rek ma mën a jaaxal koo xam ne xaw ma na koy def mooy koo xam ne daal ni ma yàlla def néexu te loolu def naa bëriwul kon nag ma di leen yëgal ni la ku yaakaar nit jébbal ko sa ko àddina ak àllaxira mu mënal a lu ne tey ak ëllëg ah, war góor nu nag ci xam ne jébbal googu nga ko jébbal sa bopp mu nangul la ko doyoon na sëkk teraanga ci seen diggante doyoon na ab sax seen diggante bu wëlbatikoo nag kenn ci nun ko ne mu teral ko teraanga joo xam ne gor ya daa wax ni koo ku leen teral ñu ne yàlla na nu fekk sa bis ba jaay ci sunu bakkan fukkeel ba te relu monsieur su leen koo teral mu teral nu ko kon nak te am bis bi wara ñew te ñëwagut war na no baxal bis bi di ci góorgóorlu te dara mënu ko te ñew te bu ñu wéy ci digëram di di ko sam limuy téré no de ko sam bu ñu ci yeggeen bisum ndam rek lay doon ci ñun sant war na ma koy def dëgg la na ma fu war na ma koy def dëgg la na ma sàkk sarax war na ma koy def dëgg la na ma ñaan war na ma koy def dëgg la na ma waaye di wóor dal nangol ci sey tuba te bañ ko boole dara moom mi nga xam ne baat bu mu wax ak lu mu bind boo ko teqali tele dana la wóor ki ne ci umul ci ko dëgg jërëjëf jërëjëf jëf bàll كل